Hey guys, what's good what's good hey King Lord Wes guys salaamaaleykum salaamaaleykum daal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy defee chaque fois boo gars yi tey damay ñëw at euh, taxawaale su mel bi jàppise waxaale sama soxla déglu leen baax parole yi parce que dafa am importance li nga xam ni moom laa leen di jox mais di ñëw remercier sénégalais yi si euh, support bi nga xam ne maa ngi koy gis de vos côté euh, je me suis jamais senti comme ça moo tax tey ma koy évoqué am naa xol comme gars ba dañu yaakaar ni aw ma xol am naa xol su ma gisee loo xam ne dina ma neex venant des sénégalais si si si critiques yi yu positif yi yu négatif yi interaction bi commentaires yi like yi surtout j'aime bien j'aime bien mais dafa am benn problème boo xam ne moo des moom laa leen bëgg ñaan mooy man je peux pas comprendre comment je peux faire une vidéo de dix minutes ah leen tayal seetaan leen vidéo bu mu jeex du leen wàññi dara ça vous coûte rien après ngeen abonné bës cloche bi di seetaan publicité yi yéen doo leen fay dara da ngeen di toog di seetaan ngeen di gën a may doole youtubeurs yi ngeen ñuy gën a may cawarte pour ñuy ñëw di waxtaan ak yéen en man du jënd view du def dara lépp seen loxo laa ko bàyyi boo leen mënee seetaan publicité yi da may arrangé parce que mën a gën jënd matériel dinaa gën a mën a ubbi studio bi nga xam ne bëgg naa ko ubbi boo leen aussi tamit seetaanee samay vidéo du début à la fin même bu fekkee 10 minutes la même boo leen seetaanee 7 minutes sax mais pas 2 minutes 50 xam nga tamit gars ay 3 minutes si vidéo boo xam ne ay 15 minutes loolu day tax waa ji xam nga du bëgg a def ay recherche yu bëri quoi moo tax gars yi bëri ñu naan wees da war a def prise de recherche mais su ma defee prise de recherche di def ay montage di def loolu noonu pour nit ñëw seetaanal ko deux minutes wax du ma neex waa gars ngir yàlla da leen seetaan vidéo ba mu jeex à part nag liker bu fekkee vidéo bi neex na leen disliker bu leen vidéo neexul mais commenter leen parce que gis naa seen interaction vidéo may def ni tey bu leen beneen vidéo boo xam ne moo leen ay affaires yu bëri ok tere dañuy ñëw si beneen facette la beneen la dama ñëw wax euh, si trois points premier point bi mooy euh, ISEP élèves yi nga xam ni euh, gars yi ñoo nañ foofu noonu di sànni encore lacrymogène kon Sénégal tey jii nii képp ku yóbbu sa doom sa école doo am sécurité deuxième point bi moom mooy ki nga xam ni moom moo di Boy Djiné Boy Djiné Boy Djiné mi nga xam ni rëcc na tout récemment moom la gars yi di wooy Michael Scofield troisième point bi mooy ki nga xam ni moom moo di Kébé booy bi nga xam ni euh, dañ ko sacrifié quoi ba booy bi léegi bëgg ko yóbbu comme li nga xam moom moo di dalal xel ni dafa fekk ni ñoo ko def pression boobu noonu te pourtant gisuma beaucoup si quoi maanaam toor yi nga xam ni moom la ñuy def jigéen je crois que ni sénégalais yi moom la ñuy xeex mais toor yi nga xam ne dañ ko def dañ koy def góor ñu bëri duñ si xeex quoi ñu commencé si ki nga xam ni euh, moom moo di élève yi nga xam ni ñu ngi woon euh, ISEP bi nga xam ni moom moo nekk jëm ñaajo maanaam man j'ai pas compris quoi j'ai pas compris léegi Sénégal ku nekk da ngay am euh, protection boo xam ne même booy luubal wala même booy def ñaawte même booy def arnaque parce que selon ce que j'ai entendu si benn côté bi parce que fii rek laa mën a juger je crois que ni c'est de l'arnaque je crois que ni c'est de l'arnaque parce que tey jii nii mënoo jël ay élèves dugal leen si école jàngloo leen wax ni boo amee 14 c'est passable kon boo amul 14 peut-être da nga war a refaire la classe non mais da leen di renvoyer. loolu xam nga ne c'est inadmissible te xale yi bu ñu meree c'est normal léegi parents yi tak Sénégal il faut ngeen commencer jug parce que nag yéen a ngi def ay failles yu rëy rëy rëy si monde bi ay failles yu ngande yoo xam ni seen doom yi non seulement amuñu sécurité seen doom yi non seulement ils sont influençables seen doom yi du ñu amati repères yi nga xam ni yéen yéen a war a jox repères yi nga xam ni moom lañ leen jox. arrêtez de vous faire blanc ay tubaab laa ay lii ay monde moderne genre yu noonu il faut il faut maintenir li nga xam ni. moom la ñu war a maintenir comme éducation léegi bu ñuy moderniser wu ñu moderniser wu sans ñu ñun ñooy décider li nga xam ne moom moo di suñu modernisation kon tey jii nii xale yooyu noonu bu ñu demee ba mer nga xam ni jamono metti na ko xale yi nga xam dañu dem pour jàngi léegi le gars les deux gars j'ai j'ai compris que ni treize la am de moyenne virgule xaw ma ñaata benn booy bi trois mois demul école ñu renvoyé ko parce que yeggul quatorze quoi léegi nag ma su fekkee loolu si règlement intérieur parce que tey jii nii parent buy dem inscrire sa doom il faut nga xam ni nga xam moom moo di règlement intérieur école bi si biir règlement intérieur bi est-ce que am na li nga xam ni moom moo di boo amul 14 de moyenne dañ lay éliminer parce que c'est très important wala woo loolu noonu bind nañ ko fenn foo xam ni école bi am na droit renvoyer élève bi après bu mu fayee les mensualités fay li nga xam ne moom moo di inscription bi loolu il faut ngeen xool ko deuxième bi aussi tamit naka ngay mën a defee formation pendant deux amul zéro pratique mooy maanaam doo pratique da ngay da ngay théorie rek di tërërër li moo tax ñu ne sénégalais dañoo bëri wax parce que lépp lu ñuy def ay tërërër ay théorie rek du am benn pratique troisième point et dernier bi mooy benn directrice boo xam ne si année bi benn yoon lay ñëw wàcco tam dugg biroom amul benn genre confrontation ak élèves yi pour xam li leen métteeg li leen méttiwul en fait gars lii mooy li nga xam ni moom moo xew foofu loolu nga xam ni moom moo di ISEP ok beneen point bi mooy Boy Djiné <laughs> non waa ji instant nii star la Sénégal quoi ñu ngi koy woowee le Scottfield sénégalais booy jinne ñu ngi koy woowee le Scottfield sénégalais ndax la saa ñu ko tëjee prison mu évadé mu génn bii paa nag. gis nga genre situation yi nii bu nekkee seen dëkk yi nga xam ne ñun moom la ñuy toppandoo chaque fois bu ñu amee genre nit ñu terrible yi nga xam ne non seulement dañuy ay si arnaque wala dañuy ay si informatique dañuy aay si lu nekk le gouvernement à travers la police day recruter waajooju noonu teg ko ci côté. maanaam bu ñu gisee benn genre génie parce que kii ko ko xool xam ne kii génie la kii xel la yor xel il est très très très intelligent léegi genre intelligence bi nii boo ko gisee si nit tu l'utilises de manière saine tu l'utilises de manière boo xam ne jox ko liggéey boo xam ne da leen ni kii dootul def yenn arnaque yi parce que nit ki ñetti façon sàcc moo am dafa am sàcc parce que challenge la ma maanaam won sénégalais ni mën naa sàcc wala won say xarit ni mën naa sàcc mooy le cas de Adamo bi muy sàcc bi muy toog di wax am beneen façon sàcc boo xam ni ñàkk mooy tax nga sàcc parce que da nga am yërmande da am sa kër koo xam ni yow da nga gis ni nit ñi ni ñuy lekk il faut que sa waa kër lekk ko am beneen sàcc boo xam ni pour wan sa waa kër ni mën nga def loo xam ni munoo ko parce que c'est c'est c'est différent quoi ñetti sàcc yooyu noonu moo am léegi boo amee genre nit yoo xam dañuy dañuy dañ lay jaay rek quoi en tant que gouvernement mu leer la ni. c'est police mënuñu ko jàpp wala mënuñu ko tëj prison mënuñu ko tëj muy évadé nu ko neexee kooku da koy jël teg ko sa wutal ko liggéey boo xam ni dina la aider sur beaucoup de criminalisation parce que ki ko xool xam ni il est intelligent yeneen dëkk noonu la def wala nga jox ko benn liggéey boo xam ni il va gagner sa vie te dina am respect te su boobaa dina respecter ñi nga xam ni moom moo di population bi c'est ça qu'on a fait ak benn mannequin ko def ko mannequin international te pourtant crime rek la doon def ça pas dire a ñëpp a war a booy Juné il est très intelligent il utilise sa tête may leen ko doole pousse leen ko teg leen ko sur des cas yoo xam ni il peut régler beaucoup de situation ñu si troisième point bi Mansour Kébé la tudd je crois gis naa ko si vidéo Xalaat TV benn booy boo xam ne ils ont bousillé sa vie ils ont sacrifié sa vie non seulement tëj nañ ko pendant trois ans xaw ma quatre ans yoo xam ni mënul def li nga xam ni moom moo di bac mu perte année bakkam ñu bàyyi ko ñu jiñ ko li nga xam ni moom moo di terrorisme or qu'il pas un terroriste. parce que di nga xool nit ki xam ne kii du terroriste quoi il faut qu'on se dise la vérité di xool xawma nag ba lan lañ si bëgg bëggoon def ak lan lañ si bëggul def mais tamit am na ñenn ñoo xam ni boo leen tëjee nga génn nga gis kooku noonu di jéem a demaat école di jàng même bu fekkee doful wala pertul wala ñàkkul li nga xam ni moom moo di gëm-gëm bi mu amoon pour am diplôme yooyu noonu nga gis kooku noonu ngalawaay bu ko yàqal waay léegi jël nañ ko sonal nañ ko bundu xatal nañ ko toroxal nañ ko ba instant yi nii booy bi psychologiquement il n'est plus bien te ni ñu yàqee booy boobu noonu noonu la ñu nar a yàqee beaucoup de jeunesse Sénégal léegi nag affaire bi lenn la Sénégal pour que tu sois respecté mooy maanaam da ngay da ngay doon fenkat comme ni ma ko waxee chaque fois di mballu si ay vidéo di nekk nit ñoo xam ne waxi dof ngay wax di nekk si lu nekk si télé bi pour ñu mën la jox cër léegi avec ça ñu ne jeunesse bi il faut mu changer jeunesse mënul changer bu fekkee ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy diriger réew mi dañu fay mooy maanaam parents yi ak gouvernement bi mënul ne. jeunesse boobu du changer dañuy dem de pire en pire ak internet bi nga xam ne mu ngi si dëkk bi que moom mooy troisième seytaane parce que seytaane ñetti camp la waa ah, ngeen jégal ma si kàddu yéen jigéen yi mais boo leen dégloo bu baax ak li may waxee di ngeen seytaane jigéen la njëkk a nekk après mu transformé wu nekk xaalis après mu transformé wu nekk internet maanaam li yëpp seytaane rek moo nekk di dawal léegi nag ku bëgg a ànd ak moom da ngay bàyyi say doom si ñetti ñooñu ñuy def lu leen di neex ku bëgg a sa doom contrôler ko si xaalis contrôler ko si jigéen contrôle ko si internet nga gis ni di nga am doom bu am njëriñ bu mel ni Kanté dinaa leen defal vidéo si Kanté incha allah en tout yi loolu moo nekkoon vidéo bi euh, benn débrief rek comme que annoncé yaa ngi ma ne fallait que aussi tamit ma jox sama xalaat King West la woon ak yéen wasalaam. des bêtises c'est mon jikko pour nga mën a féete ci kaw fa nga liggéey xiide gu ma ñëpp di daaw maa sama këri di gaañ képp ku ma bibe ne la dugal boîte vocale dëgg dëgg dama xiif bëgg a siif rappeur yëpp sama biif fa ma dama solo kër ga nekk